Je me nomme Oustaz Eliman euh, Je fais partie, je suis membre de l'association des imams et oulémas et de Voilà, aujourd'hui euh, vous avez débattu euh, sur l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme et vous avez évoqué l'éducation numérique. Quel, quel est l'impact que l'éducation numérique peut avoir dans la lutte contre l'extrémisme? Euh, beaucoup de choses, je réponds, parce que Euh, comme euh, je venais de dire dans mon exposé, que euh, l'Internet, en tout cas, euh, c'est une abréviation de deux mots anglais qui signifie le premier international, l'autre net, c'est network. Et en anglais, on dit que le mot net même, c'est là où l'araignée habite, net. Ce qui veut c'est virtuel, c'est virtuel, et c'est fragile. Donc avant tout, il faut euh, s'éduquer, il faut être un peu enraciné de ses valeurs, de ses cultures, etc. pour entrer là-dedans. Et ce qui veut dire que euh, Internet a comme avantage, beaucoup d'avantages même. Parce que comme je venais de définir le mot air, nous sommes dans une ère qui s'appelle l'ère informatique, information, ce qui veut dire que tout se passe là-bas. Et comme vous, vous, connaissez les Google, et etc., beaucoup d'autres choses, mais étant un musulman, un musulman euh, doit être quelqu'un qui, en tout cas, aspire, euh, en tout cas, la personnalité. Donc la personnalité, on ne peut pas dire personnalité sans pour autant évoquer le mot éducation. Donc dans toute chose, il faut être éduqué. Et le seul moyen euh, pour obtenir ce qu'on appelle l'éducation, c'est euh, apprendre. C'est apprendre. Apprendre, nous, ce qui nous concerne quand même, c'est notre religion, c'est l'islam. Donc l'islam nous a appris beaucoup de choses. L'Internet, c'est le développement qui nous a amené ça, vers les années 90, comme vous le savez vous tous. Hein. Mais étant un et aujourd'hui, je profite de l'occasion Euh, quand même de saluer cette comité scientifique l'AN qui nous a donné cette occasion quand même d'exprimer de, devant vous journalistes euh, sur ce thème, un thème vraiment phare et un thème qui nous apprend beaucoup de choses. Et euh, ce qui veut dire que si on dit l'Internet, il faut toujours étudier cette fragilité de, de, de, de, de cette euh, comment, réseau, réseau là, réseau de l'araignée là. Donc c'est tellement fragile, c'est virtuel. Donc avant de faire n'importe quelle chose, il faut aller se ressourcer, il faut euh, retourner vers ses racines, et, etc. Pour, euh, pour... L'importance de la formation, vous l'avez soulevé D'où l'importance, oui, de la formation. Parce que euh, toute personne euh, euh, doit être formée, doit à l'éducation. Donc, euh, une personne qui, je me rappelle une citation de Mohamed Ghazali, Mohamed Ghazali, aussi de l'importance de l'éducation parce que euh, il nous rappelle que toute chose se base sur l'éducation. On ne peut pas faire quelque chose hasardeusement. Toute chose s'appuie sur, le savoir. Donc il faut, il faut utiliser ce euh, savoir, mais surtout ne pas oublier que nous sommes des musulmans. Et on a cette référence qui est le Coran, on a cette référence qui est euh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais on a cette référence qui est euh, nos veilleux chefs religieux ici, les exemples de Mam Limamoulaye, Cheikh Ahmad Bamba, Mam Al Hadj Malick Sy, Baye et cetera et cetera. importance bi mu am par rapport ak thème bi euh, dafa dafa dafa yaatu trop ndax tey ku xam yoof xam ne li mu am ci ay kilifa xam ne li mu am ci ay entité moo xam coutumière la moo xam religieuse la moo xam euh, administrative la. moo xam lu mu mën a doon daanaka teew nañ fi euh, loolu nag euh, dafay jëmmal thème bi nga xamante ne moom lañ doon waxtaane muy euh, rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme beneen bi it dafa am lu am solo Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam dafa daan wax ne limaamu limaamu yoof maa ngi koy wax ci annonce yi bërëb bi nga xamante ne fii la ñu ko def mooy grand mosquée bu yoof mooy jàkki yoof bu mag bi ñu koy wax Belelaan euh, fii it fii la kilifa yoof yi di daje ngir di waxtaane li nga xamante ne mooy yëfi yoof ak lu mu mën a doon fii lañ koy nase fii lañ koy waajale fii lañ koy togge fii lañ koy defe lépp euh, ñu ànd ndëk ak mbokki Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam nga xam ne euh, wax naa ko sànq da daan wax ne abaan abaan limaamu limaamu yoof fii mooy bërëb bi nga xamante ne mooy bërëb bu cosaanu yoof ñu bàyyi laayeen ñëw ci biir yoof ci mbokki Seydina Limaamu ñoom ñeem ñu daje fi ki ndom bi tànk yëpp ki nga xamante ne tey fii ci yoof moo mag ci borom doom bi tànk yi la Hadji Babacar Mbengue jël kaddu ci tur yoof wax fi ay kaddu yu am solo ñu ngi koy gërëm dë passage imam ulama de yoof imaam Moustapha Samb représenté leen fi moom tam jël ay kaddu yu am solo it wax dëgg yàlla jooyal ko fi loolu dafa am solo trop par rapport ak thème bi buñ ko si doon tënk rek euh, présence bi amoon fii rek buñ ko filmé woon wax nit ñi ne nii la demee rek ça veut dire traduire nañ thème bi. traduire nañ thème bi wax dëgg yàlla it mbokk gi rafet na ndax ku ci nekk ñoom seen entité yëpp ku ci nekk da nga réunir ne nañu bàyyi lépp lu ñu doon def ngir daje ndax <laughs> ndax ak mbokk ngir daje ndax dëkk waaye ngir daje ndax. ànd ci li nga xamante ne mooy ak mbokk di Seydina Limaamu dinaa koy wax yoof ku ne la bokkul ak Seydina Limaamu rek dëkkul yoof ku ne la bokkul ak Seydina Limaamu dëkkul yoof kon ñoom bu ñu bàyyee seen lépp ak sun seen lu ne ñëw jëmmaal bés bi wax dëgg yàlla dafay firi lu am solo lu bari lu rafet daal macha allah.